Euh, la nga xam daanaka réussir na ko bokk na ji tas euh, xaajale kon lenn ci ay borom xam-xam yoo xam ne ñu ngi nekk ci biir réew mi la euh, bi ci mujj rek moom moo di problème mu bi gis nañu ay ay ay ay yoo xam ni génn nañu di jubbanti ca Ndelafal ak ñoom par rapport ak fiche de parrainage yi nga xam dañu lànk ne duñ ko jox Ousmane Sonko noonu la ko yéen kaay giir wàll fukki di xëy fësal leneen tamit loo xam yéen kaay di xëy na ko fësal Abdoulaye mm-hmm. te réew mi quotidien yéen kaay di réew mi ne Ousmane Sonko ma ngay xam ne ne lu jëm ci terrain gi nga xam ni moom lañ ko defaloon fële ci sëkk bëggatu ko la ko fële ci eh, réew mi quotidien moom euh, jiital parti Pastef li xam ne ne yéenam ak bëgg-bëggam daal moo ñu delluwaat ko euh, fële ci Sébikotane waxtaan noonu la ko yéen a kaay gii di la peuple xëy fësale yéen a kaay geneen 24 heures yéen a gii di 24 heures ne gannaaw ba nga xam ne waa DG dañoo siisu lànkandaar ni du ko jox la nga xam ni moom moo ay fiche de parrainage am Ousmane ay avocat am nee nañ mbir yi dañ ko yóbbu ca Sénat noonu la ko yéen a xëy fësale ci jamono ji waa F24 ñu nga yëkkati seen kàddu di xam ne élection présidentielle yi ñëw Euh, ñoom daal gis nañ ñoom ñaar ñi dañoo far noonu la ko yéenekaay gii di 24 heures xëy fësal yéenekaay bi di Source A yéenekaay gii di Source A ne saisine Sénat euh, mu soxal avocat Ousmane Sonko yilee euh, ñoom nag la ñu bëgg mooy que ñu fexe daal ba caytu problème Ousmane Sonko fexe daal ba ñii di waa DG jox ko li nga xamoo di ay fiches ñoom waa Sénat sax daañu dajee ni ëllëg ci àllarba ji ngir waxtaan ci mbir moomu lee leneen tamit loo xam yéenekaay gi xëy na ko fësal te mooy njabootu maam Ba doon occasion ci njabootu euh, ci njaboot ko ñu daal di fàttali pré euh, Ousmane euh, ki nga xam premier ministre mm-hmm. dund gu seer gi jafe-jafe yi nga xam borom kër yi ñu ngi koy yi nga xam daal ñu la ko yéene kaay gii di na ay kàddoom di moom lay amal jamono ji te saa su ñu koy ñu ko ñu ko ci téy loolu nag dafay dakk neen daal Sénégal moom amul kenn ko xam mën na bi. yéenekaay gi di yor-yor ne pré-campagne électorale Ba yëngu na ci Ba daanaka daal ay euh, maanaam ay yëngu-yëngu lañ ko teertoo fële ci Dagana euh, am fa ba bal euh, ba fatel sax jot na fa tàkk waaye tamit njabootu maam Cheikh Mbaye aussi may ñu ko fenn fu mu yàqee nag noonu la ko yéenekaay gi di yor-yor xëy fësale Ousmane Sonko nag saisir na waa Sénat su ko def ñu daal koy jox lii di ay fiche de parrainage am. ma ngoog euh, critique. critique yéen kaay ni Sénégal jamono ji waxtu nekk mën a tabb ci gouton li ko waral mooy di fu mu toll ni gis nañ daal ci campagne électorale bi lu nekk daal mu nga ci xew mu nekk nag loo xam ne daanaka buñ ci jëlu ay matukaay Sénégal mën naa daanu ci maanaam mën naa tabbi ci guta noonu la ko yéen kaay gi di critique xëy fësale eh, yéen kaay gi nag di critique ne am na ci ay garab ay garab yoo xam ne ni eh, ñu bari dañ koy jëfandikoo saa bu ñu sojee waaye xam-xam dafa wane ne eh, garab yooyu lee daanaka képp ku koy jëfandikoo ba moyut da nga amee feebaru cardiaque noonu la ko yéen kaay yi xëy fësal bokk na ci actifet dool liirub ak yeneen noonu la ko yéen kaay gi critique xëy fësal Abdoulaye mangoog euh, yéen kaay bi di révélation yéen kaay gi di révélation Abdoulaye dafa xëy dellu siwaat ci Karim Meïssa Wade a dellu euh, kaay gi ne euh, dellu siwaatam fii ci bureau mi nekkul loo xam ne ni lu lu lu leer la l'essentiel ak lu ci mënta tam ay mbokk moom ñu ngi ci xiini mi na ndax ñu ba daal fu mu tane xamuñu ndax moom Karim Wade dana dellu soit ci réew mi wax am déet noonu la ko yéen kaay gi di révélation xëy fësale yéen kaay bi di la quotidien yéen kaay gi di la quotidien ne président Macky Sall jot naa jàkkaarloog waa FMI délégation bi nag raf yëkkati nañ seen kàddu daal di rafetlu taxawaay ki nga xam moo ne jiite réew Macky Sall ba nee nañ sax incha allah du yàgg dara daañu fas yéene dékas li ci tolloog téeméer ak juróom fukk milliards ak juróom-benn suñu koppar jàppale ko Sénégal noonu la ko yéene kaay di di Quotidien xëy fësal euh, euh, Sud Quotidien Quotidien dellu soir ci immigration clandestine fële ci diwaanu USA nee nañ fu mu toll Sénégal yëpp ña ngay bàbbeeku utali ndax jàpp ne moo yoon wi gën a gaaw ngir jotee fële ci États-Unis loolu nag moo tax jamono ji am billet Nicaragua doon lu jafe daanaka sax dafa manqué léegi nag am na si ñoo xam ne dañ siy profité kon di arnaqué population bi noonu la ko yéen a kaay kii di Sud Quotidien xëye fësale Abdoulaye euh, fës na yéen a kaay bi di stade stade yéen a kaay dafa xëyee dellu si ci troisième journée Ligue des champions tey gis talaata ji lay doon Euh, Bayern nag ak lay ak Real ñoom daal nee nañ coupe euh, maanaam seen yéen ak seen bëgg-bëgg daal mooy fexe euh, ba am daal seen ñetteelu succès noonu la ko yéene kaay gii di stade Khalifa Abdoulaye suñu lamb lam ñu jukki likiin ñetti ay do ñetti ci ay doomam daañu fas yéene bëre ci weeru novembre bi muy ku ci mel ne Ama Baldé dana bëre Massène dana bëre booy Niang aussi dana bëre